ñu ngi leen ñaan nga nga abonné wala ngaa seetaan vidéo bi te bës cloche bi dugali nga mën di jot notification yi ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki jullit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam leen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndao di leen ko defal ànd ak euh, seen xarit euh, Valérie tabarakallahu mbokk yi ñu ngi woon ci xare Uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xam ne defoon nañ ko fii ci zajrul qulub waxtaan wi ñu waxtaane woon ci fàttali nit ñi xew-xew bu rëy boobu di dee ak yowmal xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delluwaat ci waxtaan woowu yëkkale ko mu mel ni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na kune ngi laaj ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la mu war a njëkk laaj moo di ne min ay na jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci ko suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarima al axlaq te la ñu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu ñu ngi nuyu mbar bu dahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala ashrafi xalqihi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 tey dañu fas yéene rek continue ak yéen seen siira bi nga xam ne moom la ñu fi dooroon mu mel ni ñu ngi woon ci xari Uhud mu di xadwatu Uhud gannaaw ba ñu gisee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àndoon nag lu nii ak juróom fukki euh, juróom ñaar soldaar ndax junni leen woon ñetti téeméeri naafeq wàññeeku ci mu des léegi juróom ñaar tey nag ñu nga Uhud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na ñetti drapeau benn bi jox na ko awus mu jox ko ku ñuy wax Usayd ibnu Xadir mu takkaat beneen drapeau pour waa Xadraj mu jox ko Xabaab ibnu Mundir ñii ne Saad ibnu la ko jox mu takkaat beneen drapeau jox ko muhaajiruun yi ñii ne Ali ibnu Abi Talib la ko jox ñii ne Musab ibnu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne fa lamma faraga al arad wa gabat ash-shams adana bilal bilmaghrib fa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ashaabihi thumma adana bil'ishaa'i fa salla bihim واستعمل على الحرس محمى بن مسلمة في خمسين رجلا يطوفون بالعسكر ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee uxut bi jant bi sooyee nee na bilaal noddu na timis yonent bi jiite nit ñi julli timis ginnaaw si gi ñu noddal gee mu jóg julli gee jiite ko nit ñi wax ne ni ñi leen doon garde nag moo di Muhammad ibnu maslema ànd ak juróom fukki soldaar yu nga xam ne ñu ngi wër jullit ñi di leen garde pour noon yi bañ leen a bett wax na ni bi mu jullee gee ba noppi wax na ne waaw kan moo ñuy pro kan moo ñu mën a garde nag ci guddi gi ñan ñoy sacrifié wu garde ñu ci guddi gi bu ñuy nelaw ba noon yi bañ ñoo bett ku ñuy wax Dakwaan ibnu euh, Abdu Qays moo jóg sol mbubbu koŋam rango jaaseem wax ne ni guddi googu yëpp moo ko gardé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taqaliwu taqaliwu kowul ak yonent bi sallallahu ba fajar nee na bi ñu xëyee suba yonent bi laaj na ne waaw ana guddi yi xam yoon wi pour wan ñu yoon wi ku ñu wax abu xaysama alxaris yi moo wax ne moom xam na yoon wi moom moo ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon guddi bi yonent bi bi mu ñëwee ba Uhud wax nañ ne jël na juróom fukki soldaar jiital ca ku ñuy wax Abdullah Jubayr mu ne leen yéen kat li ma bëgg moo di ngeen taxaw ci kaw montagne bële di ñu garde ndax noon yi ba ñu gannaaw ndax dañu ne ndigal lu am solo la moo tax soo deewee ndigal doo dugg ci musiba mukk waaye saa soo wàccee ndigal rek mën nga dugg ci musiba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax saxaaba yooyu ne leen li ma leen sant moo di ngeen taxaw fii rek ci montagne bi bu leen ko wàcc donte ñu ngi par kenn bu leen wàcc donte itam gis ngeen ñu ñun jullit ñu gañe ba yéefar yi di daw itam bu leen wàcc loolu la wax ñoom daal di wàcc wante bu ñu demee ba ci kanam da ngeen gis ne mbir mu rëy dana am ndax jullit ñi danañu tabarakallahu eh, mooy ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba lu ñaaw dal leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na di defar sàppe yi waaw ku dëng mu jubbanti bi mu defaree sàppe yi ba noppi wax ne ne jël na drapo bi jox ko Mus'ab ibn Umayr loolu mooy wax bi gën a siiw sang bi def benn xutba bu rëy daa di wax ne yaa ayyuhan naas wusikum بما أوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه ثم إنكم بمن بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه illa man adama allahu lahu rushdahu fa inna allaha maa man ataa yonent bi sallallahu ne yéen nit ñi yéen jullit yéen jullit ñi maa leen di dénk li ma yàlla dénk ci téerem bi te moo di ñu jëfe te mooy ñu topp yàlla ci lim ñu digal moytu ko ci yim ñu tere maa leen di yëgal ne képp ku nga xam ne yaa ngi ci wàccuwaayu jëf li la yàlla digal yàlla dana la fay te itam dana la dencal yool bu rëy ëllëg yomal xeem mu ne nag képp koo xam ne sa xel mu ngi ci loolu ci payu àllaaxira ki ne yàgg-yàgg dana ñëw kooku de lu situation critique critique lu mbir tiis tiis tiis dana ci ànd ak muñ ànd ci ak dëgër ànd ci ak kóolute ak farlook cawarte gu ma sëkk ci xam ne yàlla yàgg-yàgg dana ko fay te bu ko fayee rek tabarakallahu lépp lu di coonoom wala muy naqaram dana wàcc te maa ngi leen di yëgal ni xeex ak noon yi te moo di jihaat ci yoonu yàlla lu metti la lu tiis la néew na sax ku ko mën a muñ lu dul koo xam ne yàlla baaxee na ko ak njub maa ngi leen di yëgal ne yàlla daal mu ngi ànd ak ña ko topp mu ne wa inna cheytaana maa man asaa faftatixu amalakum bilsabre ala aljihad waltamisu bi dalika ma waadakum allah wa alaykum billadi amarakum bi fa inni xarisun ala rushdikum إن الاختلاف والتنازع والتثبط من أمر العجز والضعف وهو مما لا يحب الله ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continué xutbaam ne leen maa ngi leen di yëgal ne yàlla ànd naag ña ko topp wante nag seytaane ànd naag ña mooy yàlla te déggal ko kon seeni jëf yu yiw di leen ko ubbeekoo muñ ci jihaad te itam na ngeen sàkku ci liggéey yi ngeen di def ak jëf yi ngeen di def langa xam ne yàlla dig na leen ku ci pay te moo di àjjana ak xéewal yi fa nekk ak yërmande yàlla ak njëggalam yonent bi ne ma leen di dénk ngeen sax jàpp ci li ma leen digal te moo di li yàlla ndigle man kat ko xër laa ci seen njub bëgg na lool ngeen baax bëgg na lool ngeen jubóog seen borom maa ngi leen di yëgal ne ak wuute aku xëccoo nee na loolu day waral ak lott ci yéen dafay waral itam ak doyadi ci yéen dafay waral itam ak ñàkk fayda ci yéen jullit du xëccoo jullit ñu waruñoo wuute ndax seenu ko wuute ak seenu xëccoo dafay tax ñu faible dafay tax ñu ñàkk solo day tax itam e, noonu yàlla yi ñeme leen kon nag bu leen xëccoo bu leen wuute bu leen di noonante bu di bañanti ñu ne itam xëccoo ak noonante ak wujjante ci alal ak bëgg àdduna nee na loolu yàlla bëgg ko te mbooloo bépp mbooloo bu nga xam ne ñu ngi wut ndam te xëccoo nekk ci seen biir yàlla du leen xéewale ndam du leen xéewale itam ak texe ca la ñuy wut kon nag maa ngi leen di moytandiku loo ak wuti mu ne yaa ayuha nnaas xadadun fi sabri anna man kaana ala xaraamin faraqa allahu baynahu wa bayna wa raxaba lahu anhu xafara allahu lahu damba wa man salla alayya salla allahu alayhi wa malaikatihi asharan wa man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fa alayhi aljumaa yawma aljumaa illa sabiyan aw imraatan aw maridan koo xam ne dafa nekkoon ci lu xaraam ba ci kii yàlla tàqale la ak lu xaraam loolu bañ loola ko na xam ne yàlla jégal na la sa bàkkaar képp ku doon def lu bon ba jikki lu bon loolu nga xëy rek bañ ko bëggatuloo ko jegeetuloo ko defatuloo ko te di jullit na jàpp ne bañ googu nga bañ lu bon yàlla dëgg na ci jégal la sa bàkkaar mu kon bañ leen lu bon bu leen ko jege mukk bu leen ko def mukk mu ne képp ku nga xam ne julli na ci man nee na yàlla dana julli ci moom malaakaam yi itam danañu julli ci yow fukki yoon kon dee leen julli ci man ndax julli bi ngeen di julli ci man dafay yokk seeni yiw dafay yokk seeni tuyaaba mu képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis penc ba maa ngi koy dénk muy julli juma waaw su amul benn ngant na dem ci juma ji julli ji julli juma bañ di tardé ajuma ndax toog ñetti fan yoo demul ajuma rek musiba bu rëy la yonent bi nag nee ku gëm yàlla këm yonent bi gëm bis penc ba nee na maa ngi lay dénk ngay julli juma nee na lu dul xale xale moom bu ko neexee julli ji bu ko neexee toog ndax juma waru wala jigéen jigéen bu ko neexee julli ji bu ko neexee toog ndax juma waru wala ki feebar ki feebar itam amee na ngant kooku mën naa bañ a juma wala jaam bi nga xamante ni dafa nekk ci moomeel kooku itam juma waru ko bu neexee dem bu ko neexee toog mu ne ñu dul ñii nag waaw ñu rek. yonent bi nee na mu ngi leen di digal pour ñuy julli ci juma mu ne koo xam ne séddoo na yàlla gedd àdduna séddoo yàlla nee na séddoo na ku rëy séddoo na daj dëpp gi ki nga xam ne ku ko am am nga lépp moo tax yonent bi ne kon xamuma benn jëf ju baax boo xam ne dana leen jegel seen borom lu dul ba jëf boobu def naa ko ngeen gis ma wax ko ngeen dégg loolu lépp bëgg rek ëllëg teraanga yàlla yi bañ leen a umb mu ne itam xawma bépp jëf bu nga xam ne jëf ju bon la joo xam ne dafay tax nit ki dugg safara lu dul ba jëf boobu tet naa ko moytandiku ko digal leen itam pour ngeen moytandiku ko maa ngi yëgal ne jibril mi nga xam ne moom la yàlla di yónni muy wax ak man te moo di ar ruuxul amin nee na ñëw na ci man nee na ma amul benn bakkan bu nga xam ne nee yàlla wër jox na ko wërsëg lu dul ne wër wërsëg woowu dana ca jot lu jiitu muy faatu mu ne kon nag lu wër wa yeex yeex yeex nee na bu mu tax mukk ngeen jaay seen ngor ba dugg ci lu xaram ndax bisu tey bii di ajjuma kenn mënta fexe ba mu nekk ba ajuma rek lay nekk wërsëg wi yàlla dogal ni moom nga ci war a am kenn mënta fexe ba nga am ci beneen wërsëg bu dul wërsëgu ajjuma wi nga war a am tey jeex kon nag wërsëg wi war a ñëw suba mënoo fexe ba mu ñëw tey waaw kon nag yàkkamti jot seeni wërsëg bu mu tax wutin wa ñaaw bu leen ci jaay seen diine bu leen ci jaay seen ngor moo tax yonent bi ne kon wa ajmilu fi talabi rizq na ngeen rafetal nu ngeen di sàkku wërsëg yooyu lépp saxaaba yaa ngi taxaw ci front bi jàkkaarloo ak yéeféer yi ñu war a xare xare Uhud diggante bi ci la yonent bi def xutba bi pour waar saxaaba yi nga xam ne dundam yëpp jàngale la woon kon nag yéexug wërsëg bu mu leen xiir ci mooy yàlla mu ne kon qad bayyana lakum alxalaala walxaraam gayra anna baynahuma shubuhan min al amr lam yaclamha kathir min annaas illa man asama allah faman tarakaha xafida cirdahu wa diinahu wa man waqaca fiha kaana karaaci ila janbi alxima awshaka an yaqaca fii وليس ملك إلا وله حمى ألا وإن حمى الله محارمه والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى إليه سائر جسده والسلام عليكم yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continué na xutba nee na yéen nit ñi wax naa leen wax naa leen li xaraam wax naa leen ni dagan xam ngeen lu dul ni am na ay lënt yu nekk ci diggante bi nag lënt lënt yooyu kenn xamul araam na kenn xamul dagan na waaw nit ñaa ngi ciy sikk sàkk te te xaraam gaak dagan ga nag ñu bari ci nit ñi xamuñu ko am na ñu bari ñu ko xamul lu dul ña yàlla ñoŋal mu ne wante lënt lënt yooyu ku ko jàppee lu xaraam ba moytandiku ko nee na kooku de ñoŋal na deram ñoŋal na diineem waaw léeg-léeg nga gis ko nit ñi di discuter ci cigarette ñi ne dafa xaraam ñi ne xaraamul waaw léeg-léeg nga dégg ne ñëwul ci alxuraan xam nga kooku kon da nga koy dugal ci subahaat yi nga xam ne lënt am na ci araam na wala araamul ñu ne bu fekkee ku sellal nga yow doo xool araam ga ak ñàkk araam nga comme daal dut am na ci ndax neex na yàlla wala neexul yàlla yow bëgg goo bëgg yàlla ak cofeel goo am ci sa borom ak ñoŋal goo bëgg a ñoŋal sa lislaam ak xir goo xir ci ak mbaax dana tax loolu ñuy dute di ci sikki sàkk ndax baax na wala baaxul nga ne ko fa ñukk ne tege waaw yonent bi nag nee na yooyu ñuy dute ndax baax na wala baaxul nee na ka ko fa bàyyi nag nee na kooku ñoŋal na deram ñoŋal na diine nee na képp ku nga xamante ni nag dugg na ci nee na xaw naa dugg ci xaraam waaw mu ne nag buur bu ne rëdd nga say frontière tëral nga say loi am na noo bëgg a doxale sa nguur mu ne rawatina yàlla mi bind comme buur bu ne rëdd nga say tabaarkàlla say luwa am loo bëgg ci sa réew ak ci sa nguur am yoo ca bañ lan ci bëgg ña def nga fay leen jëflanteeg ñoom ci njëkk ña ko jàdd ngir tëj leen yar leen ni ko buuri àdduna yi amee rawatina yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo tax mu ne walaysa malikun illa walahu xima ala wa inna xima allahi maharimu mu ne nag yàlla moom nee na ay frontière am mooy yi mu xaraamal mu ne ñi na nekk benn xam ne yéen ñëpp benn ngeen ndax aadamaay seen maam te adama ñu ko bind ci suuf kenn gënul kenn arab bi bu mu ne maak yonent beeg xeet kon maa gën ku dul arab déedéet borom der bu weex bi bu mu wax man kat sama der bu weex bi moo tax maa gën ku ñuul ki ndéedéet yàlla neen na gënante daal wàllu xol ci ragal yàlla rek la gënante nekk wante bind gi ma leen bind seeni der wuute kooku sama philosophie bopp la man yàlla firiloowu ma leen man la neex rek ma bind kii mu ñuul bind kii mu weex bind ki mu jo bind kii mu xonq kon nag yéen jullit yi na ngeen nekk benn jàppo ndax yàlla benn buum rek la am mu di buumu tawxid di buumu lislaam waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu mu ne jullit bu ne na nga xam ne bu lislaam bi dee benn jëmm nee na yow jullit ba yaay bopp ba ñu ne kon nag lislaam jullit ñépp bu ñu àndee di benn di benn yaram nee na te aw yaram cër bu ci metti cër yëpp yëg ko bu baaraam bi dee metti bopp bi yëg ko tànk yi yëg ko biir bi yëg ko tabarkàlla sa cër yëpp yëg ko mu ne kon nag su fekkente ne yaram solidarité boobu fa am rawatina nag jëmm ji di jëmmu diine lislaam benn jëmm rek la nee na cër bu ci metti cër yëpp yëg kon nag da ngeen fexe ba jullit bu am naqar na ci ñëpp jàpp. jullit bu am mbégte na ci ñëpp jàpp mu mel ni loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax daal di tëje waxam nag ne wasalaamu jàmm yàlla gi yàlla na ànd ak yéen loolu la tëjee discours am ñu wa awalu man anshaba alxarba abu amir abd euh, amr fi xamsina min qawmihi maa ubayd quraysh fa naada yaa la aws ana aamir fa qaalu lahu laa marxaban bika wala ahlan yaa faasiq fa qaal laqad asaaba qawmi baadi shar فتراهم بالحجارة ساعة ثم ولى ودعا طلحة بن أبي طلحة إلى البراز فبرز له a رضي الله عنه فقتله فكبر المسلمون وسر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ñu ne ki nga xam ne moo njëkk a door xeex bi moom la ñuy benn yéeféer la bu ñuy wax Abu Amir nee na dafa woo waa Aws ne leen man la Amir ñu ne ko la marhaban bika wala ahlan yow kat yaataluñ la te jàppe wuñ la mbokk yow ku bon ki yow kàccoor bi nee na foofu sànnante neen fa ay xeer waxtu nee na gannaaw si gi nag la daw ànd mbooloo ma mu àndaloon nee na bi nga xamante ni def na mubaaraza ak Ali ibnu Abi Talib ñu lewatoo nee neen Ali ibnu Abi Talib ko rey na ko ci saa si nee na ko rek jullit ñëpp kàbbar yëkkati seen jaas yi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa keroog kontaan na ci rey bi ñu ko rey. nee na jigéenu yéeféer ñu ngay way ñu ngay encouragé seen góor ñi di tëgg seen tabale di wax naan naxnu banaatu taariq namshi ala namaariq in taqbalu nuaaniq aw tudbiru nu nu nu faariq firaaqa xayri waamiq mu mel ni jigéen ñi ñu ngay wane seenu njongama pour lan pour rek xiir seeni jàmbaar ci ñu wane ak njàmbaar ci xare bi ñu ne xare Uhud am na ci ñennat ñu nga xam ne wane neen ci njàmbaar ndax am na ku ñuy wax kasmaan nee na waaye la ju nga xam ne ku ñu siiw woon ak njàmbaar la ci moom moom nag mu ngi bokkoon ci rangu jullit ñi doon xeex wante taxul woon nag mu nekk mu nekk jullit ndax dafa tardé woon jigéen ña xas ko yedd ko ne ko daal yow góoru wat bang sa morom yépp nekk ca front ba di xeex nga toog fii nee na ci la dab si nag gannaaw si jullit ñi daal di ñëw nag bokk ci sàppi jullit ñi di xeex wante daal ab naa naafiq la woon nee na bi mu ñëwee nag wane na njàmbaar gu rëy nee na mu ngay xeex mu ngay yuuxu di bëmb ni gëléem di bëmbe wane jaloore yu rëy rey na juróom-ñaari jàmbaar nee wante nag nee na jam nanu ko ay jam-jam yoo xam ne jam-jam yu metti la ci xeex bi nee na am na ku ñuy wax qataada tubnu qataada tubnu naamaan mu ne ko yaa abal yaa hani an laka ash-shahaada ndax jam-jam ya dafa metti ba qataada foogoon na ni dootu ci dundaat nee na mu woo ko ne ko yow abal gaydaaq te moo di mu ne ko maa ngi lay ndokkeel ci shahid bi nga nar a am ndax yow mii kat nan ngaa am ak shahada nar ngaa dee ci lislaam kon nag le ndax jullit ñi bu njëkk dee ci lislaam ndam bu rëy la ci ñoom ñu ne Xasmaan daf ko tontu ne ko inni wallahi ma qataltu ya aba amr ala diin mu ko giñ ci yàlla ne diine lislaam taxumaa xeex mu ko ak rëy rek ak jom-jom lu a tax di xeex ndax jigéen ñaama xas nee na foofu nag la jële jaaseem daal di koy jam boppam daal di xaru nee na bi ñu ñëwee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ak njàmbaar ci xeex rëy na juróom-ñaari jàmbaar te itam gis nañ ko ni mu doon xeexee waa ji daal tabaarakallaa commencé di ko takk wante nag jam-jam yiñ ko jamoon moo metti mbatax tax daal dafa mujj jël jaas yi daal di koy jam boppam dafa xaru yonent bi ne innahu min ahlin naar yonent bi ne dafa xaru daal mu ngi bokk ci waa safara kon nga dégg ci ne kon ndeke xaru baaxul ndax nit ki lu sëg ngëm wér-wér baaxul say julli bari bari saa boo demee ba di njëkkanteeg yàlla sa bopp rek yàlla génn ci yow moo tax ñu ne ko xaru rek dugg safara donte jullit moo tax ñu ne yonent bi ne inna allaha yuayidu hada diin bi rajuli al fajir yonent bi ne yàlla diineem ji kat léeg-léeg dana ko dëgëralee waaju kàccoor waaw wax na ne inna allaha inna allaha yuayidu hada diin bi rajulil fajir maanaa yàlla léeg-léeg mu fekk waaju kàccoor waaw mu fexe ba lii dëgëral diine di ko defar yàlla jaarale ko ci moom waaw léeg-léeg loolu am su ko defee nag da ngay nga gis ñu ne tubaab yi de ñu baax leen nangam ak nangam waaw wante léeg-léeg tubaab yi ci seen bopp yàlla tàggat leen lislaam bi am ay intérêt ci ñoom te intérêt yooyu l'islam daf koy jël ba mu jeex te du te ñoom ñu dee ci kéeféer nekk yéeféer loolu xikma yàlla waaw loolu xikma yàlla mu mel ni kon loolu moo dal xasman mi ndax xare na rayal na jullit ñi ay jàmbaar dee na ci kéeféer waaw ndax ba muy xare nëbboon na ak kéeféer ci biir ndax ab naafiq la woon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak jullit ñi jël na drapeau moom drapeau l'islam jox ko Mus'ab ibn mi nga xam ne moo représenté muhajirun yi ñu yéeféer yi nag seen drapo talxa moomu ko yoroon ali ibnu abi taalib ray na ko gannaaw sigi doomam ju ñuy wax abu shayba moko ko jël ci moom abu shayba usmaan ibnu talxa xamzatu ibnu abdil mutalib daal di koy daal di xeex ak moom ñu jëlaat drapeau ba jox ko mbokkam ma abu saad ibnu abi talxa saad ibnu abi waqaas daal koy sànni fett rey na ku ñuy wax Musaafi ibnu ibnu Talha ibnu Abi Talha daal di jël drapeau ba ci moom dégg nga As ibnu Thabit ibnu Abil euh, Aqlah daal di koy dégg nga rey nee na ku ñuy wax itam Xaaris ibnu Talhata daal di jël drapeau bi moom. fa ramaahu Aasim Aasim daal di koy sànniwaat fi ray ko nee na foofu nag la seen yaay Sulaafa Sulaafatu Sulaafatu bintu Saad ibnu Shuhayd eh, moom itam moo nizar ne kii nga xam ne moo rey sama doom yi de danaa naan ci kàngu boppam ndax moom kat mu ngi bokkoon ci jigéen ñi nga xamante ni ñoo àndoon nag yéeféer yi nee na mu ne képp ku ma ko reyal danaa ko jox téeméeri gëléem nee na seen drapeau bu noonu drapeau boobu noonu leen ko doon awante nee na wante ñoom ñëpp rey nañu leen kenn par kenn ba nu mat fukki jàmbaar yoo xam ne jàmbaar ju ci nekk remplacé nga sa morom ci jël drapeau bi mais jullit ñi rey loolu rek defet bu rëy la ndax drapeau ba cooma daawu ko jël nee na am nañu wax ne juróom-ñaar leen waayante daal nee neen fukk la ginnaaw si gi nag ku ñuy wax nee na Suaab jël na ko benn xale la woon ci ñoom nee na mu ngi dëppoon Éthiopie nee na ab jaam la woon ba mu ko jëlee ñu dagg loxo ndeyjoor ba mu taawuwaat drapeau bi ci càmmoñam ñu dagg ko nee na mu daal di nag mujj toog ñu daal koy rey nee na te kat Qazman mi nga xamante ni wax ne ne moo doon naafeq bi moom moo ko rey léegi nag yéeféer yi daal di daw ndax daanaka amatuñu benn pexe ndax xare Uhud commencement bi yëpp ngañaay li pour jullit ñi nee na jigéen ju ñuy wax bintu alqama alxaris yi nee na moom moo yëkkati waa drapeau bi téye ko nee na ci la nag yéefar yi daal di retourné nag kon mu mel ni drapeau bi ginnaaw ba mu waddee ci jàmbaar yooyu ab jam moo ko mujje gannaaw jaam boobu nag jigéenu ko mujj waaw kon daal bu jàmbaar bu bu bu jàmbaar ya dawee ba mu des fa jaam yaak jigéen ña nga xam ne kon nga am na nee na moo tax xasan thabit mi nga xam ne moo doon géwélu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way na wax ne faxartum bil liwaa'i wa charru faxrin liwaa'un xiina rudda ila so'aabi waaw ne yéen ngi puukare woo drapeau xare nee na te bon na ci puukare puukare woo drapeau boo xamante ni ay jàmbaar ko yoroon ba mu mujj ci jaam rawatina sax mu mujj ci jigéen moo tax mu ne lawla liwaau alxaarisiyati asbaxu yubaacuuna fi l aswaaqi bay al mu mel ni rek xasan ubnu saabit radiallahu anhu ku ñëwoon làmmiñ te itam ku daan te tabarkal wax ci làmmiñam ay way yu yéeme la way yu nga xamante ni suñ ko masaan a yëkkati xolu jullit yëpp sedd xolu yonente bi sallallahu alayhi sedd ñu ne wa ma dafara allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam fi mawtinin qat ma dafarahu wa asxaabuhu yowma uxud xataa casaw arrasula wa tanaadacu fi l amr laqad qutila asxaabu liwa wankashafa wankashafa almushrikuuna munhadimiin laa yalwuun wa nisaauhum yadcuuna bilwayl bacda darbi ddufuuf walfarx walakin almuslimiina ataw min qibali rumaat fa in almushrikina lamma nhadamu wa tabacahum almuslimuun yadauuna silaax fihim xaytu shaa'u ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa ko yàlla jox ci Uhud nee na mosu ko am ci benn xare waaye lii nag ci njëlbeenu xare bi bi nga xamante ni yàlla dogal na yéefar yi daw bàyyi fa jigéen ñi jigéen ñi itam talatuñu tëkk nee na seen penc daal di tas ba ñoom ñëpp ñu daw ñàkk yaakaar nee na benn occasion rek la jullit ñi am la yéeféer yi am te moo di ña yonent bi tegoon ca kaw montagne ba daf leen waxoon ne leen bu leen fa wàcc sax gis ngeen ñu ñu gañe wala ñu ñuy rey kenn parken kenn bu leen wàcc montagne ba taxaw leen ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku xamoon mbiru xare la ku xamoon itam dégg nga position xare la looloo taxoon nag mu bàyyi ñooñu foofu wante eh, wuute am na te waxoon na ci biir discours am ne julit ñi waruñuy wuute wuute am na ndax am na benn wax bu nga xamante ni am na benn saxaabi bu wax ne ah nanu dem jël ci màng yi ndax bu fekkente ne xare am na su fekkente ne jullit ñi gañe nanu jaasi ya cay wadde ak fétt ya ak xeej ya ak fas ya ak lépp luy arma rek ñoom dañ koy daal di njëkkante ji loolu la ñu tuddee alxanaim suñu paree dañu koy séddoo loolu nag lu neex la ci xare léegi nag am na ci jullit ñu wax ne xare bi jeex na gañe nanu kon nanu dem nangu ji ci màng gi wante am nañu bañ ne yonent bi sallallahu alayhi kat daf ñu wax ne bu ñu fi jóge nanu fi toog ndax kii nga xam ne mooy seen amir di Abdullah ibnu Jubayr lànk na ne bu kenn dem ndax sang bi lim ñu digal moo ñu toog fi wante ñëpp babbeeku neen dem fukki nit a fa des ak moom biñu demee nag di jël ci màng gi ci la benn yéeféer bu ñuy wax dug nu walit xam naa sax yàlla dana ko baaxe ak ngëm ci kanam moom Xaalid ibn walit moom itam ku ñawoon la ci wàllu xare baayam yéeféer bu bon la woon ndax mooy Walid mi nga xam ne moom la yàlla de xas ci suuratu nuun wal qalam Xaalid ibn Walid ba mu gisee jullit ña wàcc ci la wax ne point bële de bu ñu ci occasionné wul daneen ñu gañe kon nag nanu wiiri yéeg ci ko montagne bi suñ ci yéegee ñañ fa fekk daneen leen rey bu ko defee nag ñu mën a nag ndar képp jullit ñi moo ànd ak quelque nit ñu daw nag ñu dawee rek daal di ñëw fekk fukki nit ñooñu ak seen amir ba di Abdallah ibnu Jubayr ñu daal leen di rey Abdallah ibnu Jubayr moom rey nañ ko rey bu metti ndax rey nañ ko rey bu nga xam ne wax nañ ne xotti nañu biir bi ba ca tabaarakallaahu jumbox ba wax nañ ne génnee nañu sax ay butitam sànni ko ci biti ngir rek mer gu nga xam ne yéeféer ya ëmbaloon leen ko jullit ñi ci xare Badar ndax jàmbaar yañ leen farayaloon euh, loolu nag metti na ci gis-gis ndax loolu bu ko dalee itam wéyee ndigal rek moo ko teg bu ko dalee itam bu am ci diggante jullit ñi moo ko ko teg ndax bu fekkonte ne la leen yonent bi wax moom ni mu ko déggee noonu la ko ñooñu déggee amaana loolu du am wante nag ni ñu ko waxee woon rek ñoom dégg ndigal ak jaamu yàlla la te itam dee ci xare dafa nekkoon victoire ci ñoom dafa nekkoon ndam lu rëy ci ñoom ma tax ku masaana dee ci xare dañ lay ndokkule waaye kenn du la ndokk ndax yaramam woowu ñu yàq dafa mel ni koo xam ne dafa tabax këru juróomi million ay saay-saay ñëw bàyyi ba guddi ñu toj kër ga yàqu ko ba kër ga yàqu gannaaw si gi yow mi ñu yàqal sa kër nga am jaaxle lool waa ju baax daal di ñëw jox la këru téeméeri million yow këru juróomi million ak këru téeméeri million wuute nanu yaram woowu ñu ko yàqal moom lañuy ñuy misaal ci këru juróomi million ëllëg àjjana ba ko yàlla di fayee moom la ñuy misaal ci këru téeméeri million kon loolu ko yëfir yi def ci yaramam ëlëg yàlla dana ko fayee loo xam ni muy ëpp fuuf li amoon ci àdduna ci wàllu daraja ci alal tabarkal ci wér ak ci lépp kon mu mel ni rey bi ñaaw na a tax na itam jullit ñi jaxle léegi nag Xaalid ibn Walid rey ci julit ñu bari ak ñi mu àndaloon ñi jaaxle lool ndax jaasi yaa ngi leen di jóge fu ne ñu mujj ñoom ci seen biir sax ñu ngay reyante da nga gis jullit bu rey moroomam te du ko tey lu tax ndax yéefire dañ leen a ndar képp wër leen ci wàll gépp ndax benn point rek moo leen jaaxaloon mooy montagne boobu ñu taxawoon. léegi bi leen Xaalid ibn di dikkee gannaaw yéeféer ya dawoon retourné waat ñëw léegi ñu ndar képp jullit ñi ñi ëpp ci jullit ñi nag daal di daw bàyyi fa yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñu tuuti. keroog wax nañ ne Iblis laanatullahi alayhi taxaw na ci kaw montagne daal di wax ne rey nanu yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ne keroog mu ngi yor. melokaanu mu ngi soppaliku nit jël melokaanu jaalu bnu suraq nee na wax ne inna muhammadan qad qutil mu yuuxu wax ñetti yoon nee na foofu nag eh, coow li bari na ndax am nañu jànnaxi ci jullit ñi yéefir yi itam am nañu kontaan ndax buñ ne rey nañu yonent bi rek julit ñu bari ah, loolu dafay daal daf leen di daal di découragé ci xare bi te loolu dafay nekk defes bu rëy loolu Iblis a ko def. nee na foofu nag jullit ñi rayante ndax wax nañ ne ku ñuy wax eh, Aba Burda Abu Zaana dóor na ko ñaari dóoru jaasi te yëgul ne ki mu dóor la ndax jaaxle rek nee baayu xudayfatu bnul yamani te moo di ibnu jaabir nee na jullit ñi song neen ko ak ay jaasi di ko dóor nee na xudayfatu bnul yamani di leen yuuxu naan leen abi abi abi bu leen ko dóor kooku sama baay la jullit la wante jullit ñi jànnaxi gu ñu jànnaxi tax na rey nanu bàyyi xudayfatu bnul yamani dóor ko ba mu faatu ginnaaw bi ñuy bi muy bi muy faatu bi ñu ko reyee ba noppi la soog a yëg ne Xudayfatu bnul Yamaani mu ngi leen di wax ne ki ngeen di rey de sama baay la te jullit la nee na ginnaaw si gi nag fekk na réccu passé na ndax góor gi faatu na foofu nag la Xudayfa delloowaate boppam ci yàlla ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daal di wax ne yaxfirullahu lakum wa huwa arhamu rahimin lii ngeen def sama bàyyi te muy jullit de yàlla bu leen ko yàlla jàppe yàlla na leen yàlla jéggal ndax yàlla moo di borom yërmande nga gis ne jullit ñi gëm gu dëgg gu nekk ci seen xol dafa daan def ci ñoom sago dafa defoon ci ñoom sago ba tax na itam Xusayfa ibnul Yamani situation bu difficile la nekk ndax yéeféer yaa ngi leen wër ci wàll gépp ñu ngay xeex rey nanu bàyyam ci biir xeex bi mënoon naa saalit mënoon naa wax beneen wax budul ñaanal jullit ñi yàlla jégal leen woo itam yërmande yàlla di ko ñaanal jullit ñi ne yaxfirullahu lakum wa huwa arhamu rahimin nee na fa zaadatuhu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xayran wa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa bi dijjatihi an tuxraj nee na bi yonent bi déggee loolu bég na ci kontaan na ci daal di koy ñaanal yiw ñaanal xodayfa yiw